xoykaleen xale jigéen yi nag suñ xaree nangoo xeeba xeeba xeeb ba nekk sëy ak léegi moodu moodu lu tax bu gaayan bi delloo ñu continuer seen gaayan yi ne fii ba leen di si ci ginnaaw loolu wul ci jabar moodu moodu yi kese quoi dafa bari ci dëkk bi léegi bari na si jabar bari na ci jabar moodu mais gars yi ñi ngi ñuy doxal seen jabar fii ci jigéen ñi manqué ñi rek dafa am ñu wayul mooy yenn genre yi ma wayuñu matuñu am na ci jabar moodu moodu yi mais yaa ngi xëy ki waat man gis naa ci yu bari